ngaan Pascal Njoon kel fa refu Njoon kel fa cooxe na cermo kel fa na ndoxe fee kel fa ne Pascal njoon kel fa ndaf yee joxe na cermo kel fa naa ndoxe feel soofa yoo kel fa rafa yee ni soofa yoo kel fa rafa yee joxe ta cermo kel fa naa na heefe soofa yoo kel fa ndaf yoo oyoon fa boskaal kel fa ndaf yee joxe na cermo الفنان رخيفي خلاص رفيمي كالفرفي اسوفي كالفرفي وجد جرمام كالفنان هيفي انا ينفي جوباس mbokku babaak ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam bi am mbégte lool dellu siwaat fii Baabaak parce que bi ñu yëkkatee sunu mouvement bi Baabaak ak Noto ak dëkk yu bari ci Jobaas bokk na ci dëkk yi nga xam ni dem nañ fa moonte ay comité yu am solo ñu ngi leen di sant di leen gërëm mm-hmm. may yëkkate ay kàddu nuyoo di ko jëmale ci sama xarit monsieur le ministre Alioune mi nga xam ni mooy le maire de Noto mu nekk kilifa goo xam ni ñun ñoo bokk coalition Benno Bokk Yaakaar liggéey bi muy liggéey dans le sama ñëwu tey dafa ñëw pour dolli ko doole pour gën ko jàppale ci biir Diobass ma bëgg ngeen gise ko noonu jo mi nga xam ni moo ñu représenté fii dama bëgg mu joxante loxo ak militant ministre Alioune Sarr ñu ànd liggéey Diobass ngir coalition benn Bokk Yaakaar gën dëgër fii ci biir Diobass yéen waa Diobass nag kontaan naa ci yéen rawatina nag fii Babac mi nga xam ni sama ay mbokk séeréer ñoo fi nekk ma am mbégte lool ci mbot ne bi nga xam ni moo ñu teeru won ñu sunu cosaan fàttali ñu sunu démb sama yaram daw ci ba ma def ni ma daan def fa nga xam ni fa cosaanoo muy caajaay mbot ne yi wër caajaay yépp ak mu jot dañuy ñëw sama kër la ma def ak ñoom nag laa def ak waa Jobaas parce que séeréer yépp benn lañu ay mbokk lañu kon maa ngi leen di sant ci ciosanu seer bi nga xamni gene wat ngeen ko fi dama ñewat nak tay pour waxtaan ak yeen xam ngeen ni def nañu ay election ci 2017 election yoyu dañ doon fal ay député election yoyu jeex na ñu ngi sante yalla parce que département de Thiès coalition beno bok yakar moko gagné waye xam ngeen nak ni 2019 février 2019 ñu ngi war a dem ci ay élection yu am solo muy élection présidentielle élection pour fal beneen président de la république wala pour falaat ki nga xam ni moo fi nekk li ma mujjee wax nag moo ñu ñor maanaam falaat ki nga xam ni moo fi nekk parce que kenn ku ne xam na ni président Macky Sall liggéey na Sénégal misaal bi may joxe mooy ko fi mu toll amul benn dëkku àll boo xam ni am nga complexe. boo demee ci réewu taax lépp loo gis ci taax yi yaa ngi koy gis ci réewu àll yi ñu ngi nii courant bi tiim ñu te loolu jafe woon na fi ndox mi bari na tali yi président Macky Sall mu ngi koy indi ci politique bu am solo bi mu taxawal muy le PUDC loolu nag mu am lu bari loo xam ni da koo tàmbali ñu bëgg mu mën koo yeggali ak jàmm loolu moo tax ñu dellu soit ci yéen di leen ñaan ngeen gën a góorgóorlu jappelé bi ngeen jappelé won président démb ak barki démb ngeen continuer ko ba élection yi di ñew 2019 ñu man ko fal au premier tour ma ngi gërëm nak délégation bi nga xamni moma gungé fi gunge fii ci Diobass kontaan naa ci bu baax ma bëgg nak su ngeen délo Thiès ngeen gërëmal ma les communicateurs traditionnels ngeen gërëmal ma imam yi parce que nak bi ñuy Macky Sall def ñoo sant ñu jégué kilifa diiné yi Sénégal dara du fi sotti te kilifa diiné yi duguñ ci loxo man moo tax dama sawar ànd ak yéen dama sawar di def sama alal ci lépp loo xam ni moom la diine woote parce que nag loolu dama koy roy ci Macky Sall liggéey bi muy liggéey ci diine yi moo xam Tiwaawan la moo xam Touba la moo xam Njaasaan la moo xam Ceneba la moo xam sunu mbokku catholique yi la président Macky Sall bàyyiwul kenn ñëpp lay jàppale kon ñun dañ ko war a roy kon nag bu ngeen doonee ay kilifa diine sol seen mbubu imam ñew topp ma ci délégation bi wax deug yalla amna naa lool ma ngi len di gërëm di len sant bu baax yeen wa mbokki baabaak dégg na doléance yi ñen wax jo dina défar projet bi andil ñu ñun yoru ñu la langue de bois duñu wax lo xamni dinañ ko def fek duñ ko def projet bi dinañ ko saytu waxtaan ci ak jo yeggale ko fuñ ko wara yeggale incha allah waxtaan ak kilifa yi ñu man len ci jappalé mouvement de soutien yi amna ko ko wax légui mouvement de soutien yi ñu ngi liggéey liggéey bu am solo ci biir département de Thiès. Euh, lim naa leen rek barki démb ci benn émission. Mm-hmm. fàtte cee lim sama xarit Habib Niang mi nga xam ni. bokk na ci ñi mujjee ñëw waaye bokk na ci ñi gën a ràññeeku. loolu lu ci am solo la maa ngi koy félicité di ko encouragé di nuyu sama rakk Alé Niang moom aussi mouvement la yor ñi fi yor mouvement à Thiès di liggéey. te feeñu ñu bari nañ incha allah dina dem ci ñëpp waxtaan ak ñëpp ba dajale ñëpp liggéey bi ñuy liggéeyal président Macky Sall gën a yokku gën a yaatu ñu ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah. yow sa digganteeg Macky Sall ratax na président de la république ratax na ma new la woon dama amoon dama defaroon benn projet boo xam ne ah il faut ñu amaane ko fexe naa ba ñu amaane ko ak ñu ma ko sëqal kon projet boobu dama la ko

loo man it loo def ñu jël waaye lii ñu bëgg nam ñun waa Jobaas ñun ñi nga xam ne ñooy mouvement Maguette Macky bu Jobaas ñu nga ñaanal ñu audience ndax ñu mën a jàkkaarloog Macky Sall ñu mën ko présenter projet waaw ndax kat bëgg ñoo des gannaaw te am nañu yaakaar ci yow waaw kon yaakaar boobu nag ah mu ngi ci sa loxo. kii lu àndal tey muy Babacar Pascal Ndione. nga xam ne moo yor mouvement dollil Macky dama wax ne Macky Sall war nañ ko dollil ndax lim fi jëf doy nañu ñun ñi dëkkee Jobaas dëkkee Thiès ku nekk xam na ne ku ne jéem nga fi sottiwul waaye bi mu ñëwee aéroport baa ngi nii ku ci sawar boo moytuwul boo wàccee dox di nga àgg ci aéroport bi autoroute à péage baa ngi nii ku ci sawar boo wàccee boo doxee ñëw dugg sa kër Babacar Pascal Dione mii nag. ni mu mel bu ko bàyyiwul ñun duñ ko bàyyi xam nga lu tax ñiy naxe bari nañ ñiy war bari nañ ñi dul wax dëgg bari nañ waaye Babacar Pascal Ndione bokk ci te du ci bokk ba dunay tukki Babacar lu mu la wax dëgg la lu muy waaj a wax dëgg la Omar Dem mii ma àndal ak Baye Ngañ Fay ak Imam Makhtar Sow ñoom ñëpp ku ne xam na ne tant yi lañ ñu xamee man Alhaji Ibrahima Sakho moo jur sama baay waaye Babacar fu mu jëm ñu ànd kon waa Baba tey Babacar da leen a andil leneen ndax ay sëriñ la leen andil te buñ fi ñaanee yàlla mu nangu ko waaye mouvement yi wax naa ne na leen Macky Sall bàyyi xel parce que mouvement yi dafa am ne amu fa keneen ku dul mouvement yi ñam fa fal kenn gisu leen waaye Babacar mooy faj soxla yi mooy dagg buumi gàcce yi ku ko soxla gis ko lu tudde Macky mu dem kon Babacar fi nga teg sa tànk continuel Macky Sall maa ngi lay wax ne la bàyyil xel Babacar parce que am yoon waaye bàyyil xel mouvement yi waa dëkk nañ leen ñu ngi leen di jàppale. nee na mi ngi ñaan pour ku ñu jàppale ñun waa Jobaas. ñun waa Jobaas. sonn nañu. sonn nañu. nee na ñu ngi testasi ci lu ne. te amaguñu nu ñu bëggee. te amaguñu nu ñu bëggee. ñu ngi wekk ci moom yaakaar. ñu ngi wekk ci moom ginnaaw yàlla ak yonent bi ñu ngi yaakaar ci moom. nee na mu jàppale ñu. nee na mu dimbale ñu. mu dimbale yàlla mu noppi ci mu noppi ci moom. dana wasalaam. te yaakaar naa kii di Babacar Pascal Dione ñëwam fii du du ñëw gàcce fii parce que déjà lël bi taxaw ci kanamam fii ndam lu rëy na ndam lu rëy la rawatina moomul séeréer comme ñun naw lu ñuy def ba yokk ñoo ci njukkal ñu may na leen ñekk kon yaakaar naa kii li ñuy dund nii dañ ko ca fekk ñun tamit vraiment mu jox ñu suñu cër. comme ni ko Jo waxee Dioba sangi ni mais nous les jeunes nous luttons pour l'émergence parfaite du jobas te yakar na ni pour parvenir à cette émergence ñun kese mënuñu ko dox nan dinañ ko dox waye tamit dinañ jakarlo ku mel ni yow te bu ñu nee ku mel ni yow ça veut dire dañu am yakar ci yow de gauche à droite de tous les côtés de tous les côtés kon yaakaar naa comme ni ko Jo waxe en tout cas ñoo ngi nii ci sa kanam moo ngi ci sa ginnaaw moo ngi ci sa wet guddeeg bëccëg di la ñaan tamit fépp foo mën a toll del sànni bët ci ñun ndax ñun à partir d'aujourd'hui ñun tamit nañ la jox suñu bopp suñu bopp jox la suñu cër yëpp te yaakaar naa ah am na ni ko loolu bu ñaan fi te yaakaar naa ñaan bu ñu ñaan fi du la bàyyi parce que def nañ ko defaat ko te vraiment amuñ ci gàcc. ngir xool kii bu baax a baax mooy Babacar Pascal Dione. kan la fi nekkal kan la fi jàppale président Macky Sall te baba umple wuñu Macky Sall bëgg nañ ko sopp nañ ko te ñu ngi koy liggéeyal kon bu fi soo ñëwee wax ba indi fi kii yéen ñëpp ngeen ñëw taxaw nii vraiment mënuñ rafetlu lu ko ëpp kon nag monsieur Pascal John soyez le bienvenu vraiment content nañ ci yow bëgg nañ ci yow yàlla na la sàmm jàppale la jàppale jë babaat jàppale jëbaas jërë ngeen jëf